xam nga xam nga xam nga boo leen di boo booy discuter. Euh, boo nekkee jeune talent buy way. war a toog ak Youssou Ndour di wax waxi way. dana metti fii Sénégal mhm. du dëgg. léegi nga bëgg a wax football jàkkaarloog Laye jaw le monument c'est difficile même si ñun aussi dañuy camper si suñu ay position moo tax muy indi kii yi mais mais man je pense que suñu équipe bi fii rek la mën a yem. pour man équipe bi baaxul et damay dégg tout le temps nit ñi naan dañ leen war a former mais équipe boo xam ne cent pour cent des joueurs ay joueurs yu jógee extérieur yu joué extérieur la mais local bi bokk si donc il faut pas qu'on parle de formation dafa am dara loo xam ne xaw ma ndax gars yi fàtte nañ ko fàttali nañ ko mais relation Aliou Cissé ak Sadio Mané ak Idrissa Gana Gueye ñoomin seen fan la commencé mais est-ce que am nañu léegi amati nañu possibilité boobu Edouard Mendy ñun ñoo ko formé Kalidou Koulibaly ñoo ko formé Jacob ñoo ko formé Iliman Ndiaye ñoo ko formé te tant que ñi ngi demee nii bu ñuy wut équipe dañu naan booy yi fan la ñuy jouer du ñu xool fii local donc Sénégal dañu mën a aussi théoriser loo xam ne xam nga ni lii réalité bi nekkul foofu donc il faut pas il faut qu'on arrête de parler de formation locale parce que ñun bu ñuy wut joueur dañu naan Boubacar Camara moom la ñuy xëccoog France mu nekk débat mbay Ndiaye moom la ñuy xëccoog Mbaye Niang moom la ñuy xëccoog tëre mais qu'est-ce qu'on veut on veut un football local bu dem équipe nationale wala on veut chercher les les les les footballeurs d'origine africaine wala de yoo xam ne seen parents yi ay sénégalais lañu wala dara ñu jëm leen indi il faut ñu wut si lu ñu bëgg soo buggee di wër dëkk yi di wut ay ay joueurs yoo xam ne am nañu deretu sénégalais wala seen maam wala kii sénégalais lañ mais doo am équipe bi nga bëgg parce que euh, Aliou Cissé ñaata temps lay lay def ak ak joueur am entre coupe du monde beeg de matul 10 jours. par match 4 jours. waaw 4 jours. par match mais munoo fi munoo fi construire une équipe homogène munul nekk. duñu sax entraîneur sélectionneur voilà exactement sélectionneur lañ donc finalement aussi bu ñuy prôné benn affaire il faut ñu xool aussi lan mooy réalité bi réalité bi moom mooy que notre football local dafa décalé par rapport ak les ambitions yu ñu am su si équipe nationale notre équipe nationale n'est pas représentative du football local mhm. yéen ñi xam football aussi loolu xam ngeen football mais loolu logique la. Mm-hmm. donc il faut que ñu xam fan la ñu boxee on est da ngeen di conjuguer benn affaire boo xam ne dans vingt ans lay nekk nekkuñu ci ñun ñëpp dans vingt ans duñ fi toog di wax mais ci li ñu xam ci dix ans yi passé ak ni affaire bi demee on regarde pas ci ci ci suñu footballeurs yi am na benn boy bu gagné woon euh, le plus beau but xaw ma ci ci CAF award bi Pape Pape Kile Pape Ousmane Touré. fan lay football ma nga Zambie. ko boo jógewul Europe football Europe donc ce complexe là il est déjà là donc problème boo ko bëgg régler da ngay identifier exactement fan la nekk donc il faut qu'on arrête de parler de oui dañ leen war a former former wuñu kenn dañuy seet sélectionneur booy yi fu ñu nekk club yi dégg naa am na booy buy toj fee dégg na dugal na deux bi nga ne booy bi indi ko mais xamuñu ko sax booy yu bëri bu ñuy ñëw fii la ñuy doog a gis Aliou Cissé peut-être Aliou Cissé mosu leen gis ñu football sax day xool benn vidéo yónni benn waaye mu def benn scouting bu ndaw ñu jël leen indi loolu benn la donc on n'a pas une on n'a pas une équipe on na des des sélectionnés des individualités yu ñëw daje am 4 jours war a football ensemble mënuloo fa tabax dara saa yi ceebu jën bii symboliser Sénégal boo koy tabax gis nga ni ñu koy organiser ba mu homogène ba dugg amuñu loolu amuñu ko beneen bi mooy que suñu équipe bi pourquoi du équipe on na une on a une équipe de euh, bande touchard mais dëgg la yow de mais dëgg la on a une équipe boo xam ne ils dorment sur les bancs de touche de, de, des équipes européennes compétition la ñu wax. Angleterre keroog ni ñu footballé nga xam ni ñii mais xamante nañu dañu am compétition mais compétition boo ko amul moo tax ngay tenir vingt minutes trente minutes foog ne yaa téye match bi téyewu match bi de gars yi lay xam. Mhm. Angleterre yéen a ngi naan trente minutes ñoo ko ñoo ko téye mais est Angleterre xamuñu ni ñii buy au au delà de trente minutes la ñu wax. Quand tu as des joueurs qui, ne, qui ont joué un match ou deux matchs, tu es un petit pays comme le Sénégal. Oui, on a Sadio Mané. C'est une exception, mais ça ne fait pas la règle. Mhm. tey jii nii pourquoi on se on veut s'accrocher ci Idrissa Gana Gueye ak ak ak kii mais ñoom seen jamono presque passé na te bu Idrissa Gana Gueye defuloon benn match wala Cheikh Kouyaté benn match boo leen dugalee Sénégalais ñooy njëkk naan waaye dañu màgget nañu indi booy mhm. mhm. fois bi ñu fiy wax malal dal na sama kaw dugg na fii génn je pense que man ak Papis rek ñoo fi amoon peut-être benn benn position boo xam ne claire mm. Charles dafa peut-être mooy suñu grand am na lu mu doon danoon soññ gars yi xam nga mag des fois day soññ mm. mooy que dama leen di may fit dem leen même bu bu xamee ni waxtaan nañ ci après sax que nii comme donc ñun keroog amoon nañu benn kii man dama ne encore une fois presque j'ai préparé les gens à la défaite parce que loolooy dëgg ñooñu man il faut pas ñu am yenn prétention yoo xam ne amuñu ko suñu joueurs yi suñu équipe bi joueurs yi nekkuñu au top parce que ils sont pas en forme léegi nag philosophie jou équipe bi bu ñu bëggee fii ak vingt ans ñu bëgg équipe yu baax lan la ñu ban politique la ñu war a def mais est-ce que mais est-ce que tey jii nii si suñu dëkk yi ak club yi fi nekk il faut pas faire rêver les gens est-ce que fii ak dix ans li ñuy bëgg ni mën na nekk mënul nekk une équipe qui n'a pas benn local benn joueur local mais ça tout dire donc il faut pas ñu suñu prétention yi par exemple coupe d'Afrique on l'a gagné on n'a pas gagné la coupe d'Afrique en jël jël équipe bi di leen door ay 5 keroog bi ay Sadio Mané di arrêté di di dóor di dóor kii bi mais tuuti bal bi génn et on a dañu dañu kii gëm affaire bi ñafe ba kii mais suñu suñu suñu nañ regardons les autres équipes africaines regardez le Cameroun qui a joué contre le Brésil le Ghana. wax fa dëgg yàlla en terme de football il y a pas photo le Maroc on na peut pas ñun mënuñu soxlawul ngay xam football la ngay ne expert mu moom laa ni depuis vingt ans football rek la ñuy seetaan loo am benn gardien boo xam ne mënul relancer bal mu dem ci latéral bi dem ci milieu terrain bi transiter ci dix bi ñu passe ko kii mënuñu ko benn on n'a pas mënuñu manier la la la balle amuñu benn stra doo gis mu limpide quoi football bi ñuy seetaan nga gis mu jóge parce que suñu joueurs yi vingt minutes trente minutes la am ci seen tànk yi après day jeex donc aujourd'hui est-ce que la question mooy jël ay joueurs yoo xam ne prestige la wala ay joueurs yu compétitif suñu joueurs yi il faut que bu ñu munul rayante en place ci seen équipe bi qu'on commence à chercher ailleurs parce que du ñu amuñu compétition Bamba Dieng loo loolu yaakaar ci ci benn nit boo xam ne benn match la joué ci championnat bi non avec tout le reste non dëggantaan eh, benn jour match la joué yow nga bëgg a toog mais kii Krépin eh, eh, Diatta bi loo leen ko wax tooñ ko lan la am rupture des ligaments croisés mooy blessure bi gën a metti ci football. il revient de. il revient de blessure. il n'a pas de compétition. il joue devant euh, kii nu mu tudd euh, Kyle Walker de Manchester City mais on rêve quoi. baal ma baal ma Ablaye euh, bi ñuy seetaan sànq Hollande pays Pays-Bas ba ñuy waxtaanaale ci Sénégal lum la wax ci Crépin. bu ñuy qu'il revenait de blessure. Ouais, mais, que les gens non mais non c'est ba pare ba pare on ba pare ci footballeur yi dafa am ay niveau. Iliman Ndiaye oui on aime bien mën na duut mën na ki mais keroog bi ñu dajee Angleterre ngeen xam ni des na lu bëri il faut pas on on se précipite ñun dañuy émotion la ñuy demee. wey booy bi bu ñu ko dugalee équipe bi tey jii nii am na Bellingham mi équipe yëpp a ngi koy xëccoo. am na am na niveau boo xam ne boo fa toll tubaab ñoo la gën a xam joueur bu baax ñoo la njëkk yóbbu première ligue waxoon naa leen ko fii ne leen il faut pas trop rêver équipe bi da nga koy évaluer nga teg ko ci balance nga peser li nga am nga bañ a nax sa bopp et cette équipe elle est moyenne. c'est pas mauvais. ah man bu ma dem ba non je veux dire man la non boo xoolee match yi pour ah, tëj. non pour tëj non non non waaw mais mais pour ah, tëj. non ah, pour tëj. une équipe est composée de beaucoup. waaw mais xaaral nga jël. xoola fu may pour tëj faut ñu évaluer bu ñu évaluer match bi euh, kii bi euh, euh, coupe du monde bi ci benn match dañ koy évaluer sur les sur les trois le premier match xam nga quand on dit téye nañu gars yi ba quatre-vingtième minute et après les grandes équipes à partir de quatre-vingts minutes lañ lay rey c'est ça les grandes équipes c'est pas parce que tenir nga quatre-vingts minutes tenir nga match bi non dañ lay bàyyi ba nga épuisé wu ñu changé yi dóor la nga daanu contre contre bi nga xam ne moo gën a faible ci équipe bi mais c' est. Euh, ci tournoi bi. Hmm. salaamaaleykum maaleykum salaam nan waxante dëgg. penalty boobu Qatar amoon na ko. waaye oh, action bi is euh, mais non dama bu ñu tiré woon penalty kenn du ne. kenn du ne scandale scandale loolu benn la ñaari bal yi Edouard Mendy génne. Hmm. match match boobu c' était limite. oui on match contre Équateur. suñu deuxième bi mais Valencia moo passe euh, ak Koulibaly bal bi donc on n'a pas de nañu ba génn mais. avec l'équipe là pour man être être en huitième de finale c'est une performance mais il faut pas ñun Sénégal aussi il faut ñu xam que ni lii nga am lii ngay duggee marché bañ a am yenn prétention yi woy war nañu mën a kii non boo xoolee équipe bi xam ni Angleterre keroog bi ñu joué ñoom deuxième mi foofu benn virgule bu ndaw rek deuxième mi-temps. mais non non non ils ont levé le pied bi ñu la dugalee troisième but xam ni France la jegal nga foog ni seen entraîneur bi dina woo booy naan leen dem leen ngeen jéem a carte ngeen door gaay ils ont levé le pied sinon da ngay jël yeneen but ah, ils ont géré le match parce que xam nañu tey match suba bi moo leen intéressé 3-0 ñu ne oups on n'attaque plus on les laisse le truc score bi mu nekk fi nekk ñu fi pour blesser donc nañ leen waxante dëgg bu bu kii bi nekkee mën nañu jaay gars yi mais bu ñu dellu see ñu wax li ñu am ñu bañ a surcoté suñu bopp il faut pas surcoter cette équipe la parce que cet équipe elle est moyenne je suis désolé